jabaay yamal jabaay loo xam waaye jabaay bàyyi la waaye jabaay. booy buuse ma lay rey dafa nii të të të të të të të të të. billahi booy buuse ma lay rey jabaay. man ak yow ñoo génn ba léegi yan la. billahi day fen ñu ne lañ ne di tuumaal gaa yu baax yi. mun gaa yu baax yi. yow ci baax yi billahi day fen ko gerte mooy ñaar la 14 kay cën fàttewu ma. waaw maa téye fi tànk bi booy naan foo def. waaye yow yow da yaa caraw yow la 14 nga tëddee ma ah heure bu ma ñëwee nga naan ma oh, couvre fa bi couvre fa bi fanaan bi ah yow mois de mars mois de décembre yow yow njaxat yow lan mooy sa problème yow mois yi yëpp sax ah yow janvier man maa ko def nag njaxat man ma ko bëgg a ëmbal kii la jëlul ñu bat yaa ngi ko wax xam nga. waaw. déet moom ko def. ab bongo man nga ko doonalu jàngkat maa ngi ñëw man te maa imité yëpp te maa imité Xaadim Mbaay déedéet Xaadim Mbaay moom day dem ci ay armeel moom olofalu sëñ Bay Jaxate bi daa gis ci ma. tey bàyyi gars yi ngeen di yàq dee leen tuub tey baa leen tey yàq. gaa yu ngeen di yàq. waaw. dee dina may génn ko senegal daal. na ko yóbbu Afghanistan. waaw waa Richard Toll ñëpp dina leen may Gambi waaw. wala boog ñu lekk ci ab ceeb ma ko diwoo. loolu moom wax na ko. muñ ah. loolu moom. lan nee na képp lekkoon ci vaccin yi. déggal képp ku lekkoon ci ceeb bi. dindi leen la fikir. <laughs> waxal benn. xool fu mu fi ñu nar a indil dafa dafa na leen dem na leen dem na leen dem seen jaaxle jeex na man ah, kay fajkatu aajo la fajkatu aajo acca acca dar leen nii yéen nag yéen da ngeen yàgg gànta ndax da ngeen ñaaw soxor rek soxor rek Soyons non plus